ba wér nu yàgg fekk moom te nun xam ngeen ne duñ dellu gannaaw sëñ Bamba rek la ñu gëm te lu taxaw ci suñu kanam suñu diggante sëñ seen ndodd mi la ñuy jaar koo mën a doon gëmuñu luy dem aras di ñëw xamuñu loolu sëñ Bamba sëñ Tuubaa def na ci lu kenn dul def gëmuñu borom wilaaya gu rëy li ñu xam mooy sëñ Bamba def na ci lu ko gën suñu wilaaya ak suñu xam-xam ak suñu kàttan ak suñu man-man lépp tënk nañ ko ci benn baat muy liggéeyal Seexul Xaddim ku bëgg yóbbu suñ fit wan ñu ko ci liggéeyal sëñ